bile bataaxal daanaka bett nañu bëri ci talaata gi premier ministre bii di Ousmane Sonko daal di ciy fësal ne lépp loo xamante ne ñeel na ab liggéey ñu nemmee ko ko ci domaine public maritime bi daal dinañu koy tere fii ci région bu Dakar ci diiruk ñaari weer muy ndogal goo xamante ne ñu ngi ko fësal ci ab arrêté bu ñu signé altine fukki fan ak ñett ci weeruk mais lépp rek jëm ci càmbar ay titre de propriété wante itam occupation ci zone yi nga xamante ne ñoom la ñu njort ni mbir ma tegu ci yoon bile arrêté sax ñu ngi cay xamle ne taa ñu samp ab commission ad hoc fare ca primature bi li ko tax a jóg nag moom mooy sëgg ci lépp loo xamante ne ñeel na li yoon ak li nga xamante ne bi nekkut yoon ci naka la ñuy joxe ay titre de propriété wante itam naka la ñuy jëfandikoo yenn zone yi ci diwaan bile bile arrêté liñ ci xamle moom mooy lépp loo xamante ne bi soxal na ab liggéey ci ancienne dépendance bu domaine public maritime ci région bu Dakar daal dinañu koy tere ci diirug ñaari weer te lépp mu ngi tàmbali ci bis bi nga xamante ne ci la ñu signé bile arrêté bile ndogal ñu ngi ko général bi surveillance contrôle ak occupation du sol ci teewaayuk ministre secrétaire général bu gouvernement bile bile commission ak mission bi ñu ko dénk dina def ab rapport bu mucc ayib lépp rek daal di koy jébbal njiitum réew mi ki ko fas yéene jiite moom mooy ministre secrétaire général du gouvernement ci coordination bu ministre bi ñu dénk wàllu ko finance ak budget ñi nga xamante ne itam ñoo bokk ci bile commission bokk na ci ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi ci ay organisme ak ministère wante itam ñu seen xel màcc ci wàll wi ba ci ñi nga xamante ne bi dañoo bokk ci pencum ndaw réew mi économie conseil économique social et environnemental wante itam au conseil des collectivités territoriales ci wàll wu ni mel njëwriñ ju njëkk ji di Ousmane Sonko di xamle ne bili li commission bu ñu bëggee sax woo ñeneen ñu seen xel màcc ci wàllu wi mën nañ koo def itam te seen seen liggéey daañu ko xàjjale ci ñaari groupe de travail ba sa njëkk moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu yoon ak technique ba ca topp itam di sëgg ci wàllug environnement occupation wante itam titre de propriété ci bërëb yi nga xamante ne ñoom la mbir mi soxal